gis naa ko bu wér. góor ñoo xam ne xamatuñ seen njaboot dara. xamatuñ seen njaboot dara te lu ci bari ci yaay yi la man ànduma ak ñoom. doom danga koy bàyyi ak baayam doom danga koy bàyyi bu waree defal baayam defal ko su waree wax ak baayam na wax ak baayam. soo woowee sa papa téléphone moo war waaye lu sa papa doon wax noonu. déedéet man loolu ànduma si li may wax ne doom dina wax ak yaayam lu baayam yëgut. dina ah. wax ak baayam lu yaayam yëgut ah. kenn ku nekk nga bàyyi ko rôle ba mu war a seq ak moom mu seq ko ak moom parce que ñaari waajuram la tak kenn ku nekk am na lu mu war a sàkku ci yow ah. yow li muy sàkku ci yow fexeel mu mat waaye li muy sàkku ci baayam fexeel mu mat man laa gisee waaye am na eh, yu may gis moom wax dëgg yàlla rafetlu ma ko ci suñ société bi surtout nag fii ci suñ Tuubaa gi nga xam ne ñun ay royukaay lañ war a doon comme ni nga waxee rek euh, kóllëre ñun buñ koy roy duñ sori. ak a jege sax. ndax sunu wasila Serigne Mountakha Bassirou gore lool. Hmm. am ko lele lool. Hmm. amuk taalibe lool kon ñun amuñu lu ñuy jéggaani fenn. Hmm. ñu yaru nag ñun ci ay tànkam ba tax na lu baree baree bare ñemewuñ koo def magam yar ñu di soxna bu sam sëñ Basiiru yar ñu ci ngor yar ñu ci fulla yar ñu ci fayda hmm. ba yar boobu mu ñu yar moo ñu topp ba jom sonal ñu lool man hmm. lu ñu am rek suñ jomi bopp ñu ko gënal ñu koy ñaanal yal na yàlla yokk ay leeram hmm. kon ñun képp ku murit surtout rawatina ñun ñi nekk ci tuubaa gii war nga kenn ku nekk ku la lebal ngor nga fa yéene ko fay ngor gu mat sëkk ñu xool ci sëriñ Muntaxa ak ku lool layta gore da gore lool luisé am personnalité kon ñun suñu royukaay soriwul mm-hmm. fi ñu war a roy mi ngi nii jege ñu lool bu ñu xëyee bu ñu neexee heure bu ñu xëyee bu ñu neexee ziyaara ji mm-hmm. ndax sëriñ mu daqaakat déggoon naa mu ne waa kër sëñ Basiiru yi mm-hmm. bu leen ma mukk sama gis jafe leen sama ngeen pour ngeen gis ma bu mu leen jafe mukk bu maanaam bëggut ayuk sëñ Basiiru gi dara manqué ci te bëggut ayuk sëñ Tuubaa gi dara manqué ci te loolu kóllëre la dëgg ndax daa jiite njabootug sëñ Basiiru gi jiite njabootug sëñ Tuubaa gi te bëggut benn yoon njabootug sëñ Basiiru gi jooy ne kat sëñ Muntaxaa ba mu jiitee njabootug sëñ Tuubaa gi ba nëgë ni amat luñ gisatuñ ko wala lii mu oyofal leen ko lool lépp lu waay soxla ci moom rek dala yomb kon ñun suñ royukaay soriwul dañuy roy ci suñ wasila ab sëriñ boo ko amee da xool lu baax la muy def ngay roy ci moom te sëñ Muntaxa macha allah léppam lañ mën a roy. Ah. jërëjëf soxna Maam Bousso ah, sëriñ Muntaxa Basir kóllëre ak nangu ak wéye ndigal moo ko may lii mu am. Mm-hmm. ndax dafa toppoon ay mbaayam. topp ay magam. Mm-hmm. ba tey jii yàlla def ko muy sëriñ tubaa ci jamono. Mhm. ay rakkam moo tax ñu topp ko am ak moom kóllëre. Mhm. nga xam ne li ma naan euh, yoonu murit euh, boo juddoo ci ci ci yoonu murit màgg ci gis ñoom ni ñu joxantee cër ni ñu joxantee ma ni ñu joxantee kóllëre yow boo royee ci ñoom dangaa war a am kóllëre ak sa morom mu jullit ndaxte nit ki kóllëre mooy sa bopp nga amantee kóllëre avant nga ndax sa bopp mooy que ne dangay jomba def lu bare. Mhm. as gor du rus day jomb. ndax su rusee rek euh, su ko gisul ka rus mën naa dem mais as su jombee yu bëree bëree bëri du ko def te kon bu ñu bu ñu joxee kóllëre suñu bopp kuñ jàkkoole wala ñu seq yow jamono kóllëre googu dañ koy sàmm ndax dañ ne kóllëre ginnaaw lay féete waaye féete la ko kanam it dëgg la. Mhm. ndax bu fekkente ne lu sa kanam doo ko gis la sa ginnaaw ngay gis kooku kóllëreem des na. Mhm. nit ki da ngay xool démb xool tey xalaat suba. Mhm. ndax ñett yi mënul ñàkk ci moom aadama démb moom jàll na yaa ngi ci tey suba day ñëw. Mhm. ñett yooyu yëpp nag boo ko dee sàmm yàlla laaw rabbana mi nga xam ne moo indi ci kaw suuf. mën na laa fexe ba yow ñàkk ko ñàkk war ma du la gi te soxna Bousso li ma ci gën a jaaxal ñi nga gën a mën a defal ak ñi nga gën a mën a jege ñooñu ñoo gën a mën a ñàkk yow su kóllëre ba pare ñoo la gën a mën a yàq gën laa mën a toroxal ci buñ toog di yàq la. waaw soxna Diarra comme li nga wax rek euh, muy jomb jomb. nit boo amee looy jomb rekk nit ku baax nga. li ngay rus. boo gisut ki ngay rus. def ko li nga ragal. boo gisut ki nga ragal def ko waaye li nga jomm. jomm ci deret la ne. boo toogoon mennum yow képp ci sa biir néeg bii. li nga jomm doo doo ko def doo ko def mukk ci àdduna. ndax li nga jomb mooy yàlla mi la bind teete la ba nga toll ni nga toll nga tëju ci sa kër mennam yow tëju ci sa néeg bu waxtu julli jotee nga jóg jàpp ba sell julli loolu dangaa jomm bañ a julli jàmm yàlla ndax yàlla mi la bind sant la julleem gii heure boo xëyee war koo jàmm xaaroo ci ku daan la jógal julli dëgg la loolu mooy jomb jomb comme li nga wax nag euh, ki la gën a jege maam bu sa damay faral di wax ne ki la gën a jege bu la yàqee boppam la yàq. akay dëgg. ki ngay àndal guddi ak bëccëg suba ak ngoon bi waxaat wax boobu ngay àndal guddi ak bëccëg suba ak ngoon bu la yàqee rekk boppam la yàq. Mhm. ndax lépp lum la waxal kuy nit mu wax ko ci yow dina ne ko noo def ba xam ko. Mhm. te ñu bari bàyyiwuñ ci xel. moo tax nit dafa war a sóoraale ab ànd. sàmm ab ànd ànd ta ngor te yàlla rek tax waaye boo àndeek nit ki tey ànd ak moom suba bu ginnaaw subaa nga dem toog yàq ko xamal ne boo koy yàq rek yàqoo ko sa bopp nga yàq loo ko wax sa bopp nga ko wax mm-hmm. parce que boo ko xamut woon ci moom doo ko wax mm-hmm. te boo ko xamee ci moom wax ko ba muy koy def yéene ko àndoon mm-hmm. kon ab ànd dafa jara sàmm dafa jara jaarale ngor bari nag ànd nit xamal ko jóg sol saw dàll di ko yàq waaye boo ko yàqee rek yàqoo ko sa bopp. nga booy wax kat la mu wax ngay génne. waaye doo génnee say wax. àdduna du noonu. Mm-hmm. te it ñàkk xam lu bari la rek. ak ñàkk kóllëre ak ñàkk ngor. Mm-hmm. ay nit daal man yaakaar naa ne bu ñu àndee ba ñëpp xam leen. Mm-hmm. war naa am lu baree baree bari loo xam ne dinañ ko sàmm. Ah. ngor gu bari boo xam ne dinañ ko teg ci seen kanam. ba ah. kenn du leen dégg. Ah. soxna bu sa waxtu waa ngi doxantu eh, sama régisseur di sëñ Bas cameraman Sané ñu ngi xamal ne temu coloré buñ ci doon waxtaan fii ba suba. du hmm. jeex ndax saa soo xëyee. da ngay gis ku ñàkk coloré wala ku ku def loo xam ne da nga koy na ma yàlla baal ci kàddu gi da nga koy xeeb ci ndax jëfinam ndax boo jàppee ne yaa mënal sa bopp ba tax ngay xaatar xaatar yi waajur wi la jur sax doo am ci moom kóllëre muy ndey muy bàyyi am na ñoo xam ñi ngi fii seen waajur yi leen yar mënal leen ban man bu màggee kóllëre gën war a dox seen digganteeg seen waajur duñ ko dox te ku doxut sa digganteeg say waajur keneen koo ne danga koy dox danga koy nax. Mm-hmm. yaa xam muy sa mag yaa xam muy sa rakk ndax dañ ne fii ku sàmm sa digganteeg say bokk soxna bu sa koo àndal ku ne nax nga mm-hmm. ndax dangay sàmm kóllëre gi nga xam ne moom nga am ak say bokk. xam mm-hmm. ko ñi nga xam ne ñoo la yar. Mm-hmm. ba nga mënal sa bopp. bis boo ñàkkee kóllëre googu sa digganteek ñoom wallaay bu sa suma ma bëggee am sama digganteeg kóllëre du man a ne. Mm-hmm. déedéet. waaw ndax nit jege rek nga war a gën a jàpp ko ci doog ko caa boole. ndax li may wax toujours yar dafa foor. man mii ngay gis damaa nekkoon yarluwaan. Euh, te fa ma doon yarlu. kóllëre moo fa moo ma fa yóbbu muy kóllëre diggante soxna bu sam sëriñ Basiiru ak Modou Dieng mii sama papa mu tudde ma ko yóbbu ma fa kóllëre gam ma yare nag mu yar ma yar bi gën ndax macha allah tagguma sama bopp waaye sant naa bu baax ci ñama yar kóllëre googu nag toujours ma koy wax ne leen bu ma samay mbokk soxla woon fa ma ci tele laay waxee. fa ma yaroo soxla ma ma bàyyi samay mbokk dem fa ma yaroo. ndax kóllëre la te yar dafa metti surtout nag jigéen yar la ju am jom. ju am ngor ju la yar ba nga xam ne yar bii mu la yar amoo ci dara looy xebet boo taxawee ci mbooloo wax ñëpp déglu la macha allah say mbokk kenn xeebu la ci. kon kala yar war nga koo delloo njukkal war nga koo delloo kóllëre yar dafa metti dafa metti torop kon kóllëre googu na ko nit ñi di sàmm kóllëre yar dafa metti ne ko nit ñi di sàmm muy lu am solo nag man de wax dëgg yàlla bu ma xëyoon samay mbokk woo ma ma bokkal ndey ak baay fa ma yaroo woo samay mbokk laay bàyyi dem ca fa ma yaroo mm. ndax kóllëre la mm. te boo ko bàyyee rek bàyyi nga kóllëre goo xamante ne sii surtout nag lu bokk ci sëriñ Touba kon yàlla nañu yàlla di sàmmal kóllëre. amiin mbokk mi nga tàggatoo sant ñi nga bëgg a sant ndax waxtu wi saane mi may xool di xool téléphone am naan ma jeex na. waaw soxna buso hmm. ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm Sané sunu caméraman di ko sant bu baax di la sant yow tamit eh, soxna Mame sa ndax yaakaar naa li ñuy waxtaane moo ñu boole muy colère. Uh-huh. ta nga xam ko lool jàpp ko. Uh-huh. bëggal ma sa bopp. macha allah nañu yàlla sàmmal colère googu. amiin di sant rek ni ma ko waxee woon sunu wasila. Uh-huh. Serigne Mountakha Bassirou. ak eh, njabootam gépp ak njabootuk soxna Bousso Serigne Bassirou. di sant samay mag. di sant eh, sama waa koñ. ak mbooloo mi nga xam ne jiite naa leen. maa ngi leen di sant ñoom ñëpp ndax it lépp kóllëre la. ndax yàgg naa ci dëkk bi woote ñu wuy si ma te ba tey xàddeeguñu. di sant tamit nag ñoo xam ne dañoo nekk ñenn ci man di samay wëllëre di samay xarit démb. muy soxna May Diouf moom ma la waxoon soxna soxna Jore Seck. di leen sant bu baax di leen nuyu di leen ziar. di sant tamit ñoo xam ne ñenn lañ ci man muy ajaratu Sooda Dieng Daara Xuddoos. ñaa uh-huh. Sooda ko yaayu gone yi. yaayu ndayu parti bi. waaw ah, yaayu gone yi. waaw ñun ñi nga xam ne. Eh, yéen koo xam ne uh-huh. kenn la ci man di sama bàjjen di sama lépp. Uh-huh. di kenn ci ñun yërëm ñu lool jàpp lañu tenir ñu. di sant tamit madame mbay bu Mbàkke nga xam ne. léppam social la. li muy def ci kaw nit ñi di ko gis li muy def ci suuf te nit ñi yegguñu ko moo ëpp dooy sant su mbokki politiciens yi waaw faaw ma sant leen. Mhm. parce que nag dañoo yàgg ci dëkk bi yàgg ci développement te gis ñu kenn ko ñu jàppale te yeex leen a xam ñu ñëw xam leen te réccuwuñ ci dara. kon ñu ngi leen di sant bu baax. ñun buñ demee bay sant yàlla génnuñu ci parti bi ginnaaw yàlla ak ñoom la di sant euh, Ami Mbàkke bu Daam Jóob di ko ñaanal yàlla lu mu mën ren moom it yàlla na mën déwén du ko raw. Mhm. di ko sant bu baax a baax a baax. Mhm. di sant suñuy xarit suñuy doomu ndey yépp ñu ñuy àndal mënuñu leen a lim waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm di ñaan yàlla lépp lu ñu yootu rek yàlla jotale leen ca. di ñaan nag euh, seen lii ngeen sumb. ngeen dund ba. mu nekk ay tele télé télé yu ngeen moomal seen bopp barke Serigne Touba ndax jom jàngi ngi fi ngor gaa ngi fi fulla jaa ngi fi ak fayda ji barke Serigne Touba yaa baax rek di la jaajëfal bu baax ah, di jaajëfal Serigne Bassirou di jaajëfal Saane ak ñi jàpp ñëpp ci liggéey bi tey nag liggéey bi daan sama benn doom joo xam ne ñu naan ko Serigne Salif ah, wax dëgg yàlla mu ne ma yaaboy ah, ñawal ma ci tane yu bari Saane ñett ba ñeent la ma ci ñawal ne ma dee ko liggéeyee ndax baax lool moo waral ah, mu koy mu koy def xam naa numéro bi danañ ko jaarale ci suuf képp ku bëgg ci njaxas yi Baay Faal yi boo seetee Serigne Saliou dana la ko wutal te nag eh, yu rafet la ci defar macha allah yim ci defar daa mucc ayib mucc ayib goo xam ne boo ci gis danga naan moo dàq ba ca des ñu koy ñaanal suñu boroom sàmm ko ubbil ko bunti xéewal ba li nga xam ne moom bëgg na ko liggéey weggale numéro téléphone bi képp ku bëgg ci tànn yi nga xam ne moom la Serigne Saliou di ñëw da ngay def 76 878 76 09 76 878 76 09 ci ngay jaar boo ko fekkee fee mu nekk ne dana la defar yu rafet ndax moom ci yi lay yëngu ci ci njaxasi Baye Fall yeneen ak yeneen dana ci génn defar ma wise bu baax def ci. yaa gis ni mu ko defee moom rafet kon di ko ñaanal sëriñ Fallou sama doom jooju mm-hmm. yàlla kàttanal ko ba mu yor ay atelier yu bëree bëree bëri ak yeneen xale yoo xam ne jox di yàlla ñëwoon nañu ci màggal gi incha allah danañ ko sol ba ñëpp gis ko ndax soxna bu sa xale bi jël ci séem mm-hmm. tiim ko ñaw ko mm-hmm. jox la ko amoo fayam déedéet Touba gi kat ñu ngi fi di remercier mu ndooy nekk fii ci marché Ocass moom it bokk ci ci soxna jaara mu ak ngañ nekk marché daaru ma naan moom it bokk ci soxna jaara ñu nekk samay rak ñoom it di ma jàppale di remercier askanu tubaay yëpp ci ci màggal gi jàppale gi nga xam ne jàppale nan ma ko ñii di yëkkati seen alal di la ko jox ñii di jël seen ñaan ak yoo xam ne danga ko mën a wax ak yoo mën a wax ak kilifa yoo xam ne dañ lay ñaanal te yàlla rek tax di waxit sëñ maam moroom Mbàkke mu sëñ Basam sëñ Fàllu na ma ko ñëpp ñaanalal ma gudd fan Mbàkke baax na bëgg na ma yëg nañu jàpp na kër gi Waarwi TV di sant waa kër sëñ Massamba yëpp nag di sant waa kër sëñ Modou Faata Xari ñoom it dañoo jàpp ci liggéey bi di beneen cant kenn koo xam ne ku ne da koo xam ak man mu Cheikh Ibra Fayil Falilu sama baay boobu di ko ñaanal yàlla guddal fanam wérali cëram di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax ñin war a sant xaju ci ba émission bu jot rek dañ cey jël ñenn sant leen mhm. delluwaat ci ña ca des ndax wax dëgg yàlla dëkk bi jàppee nit ñu yëge di sant pencum sëriñ sooy bu sëñ Saane wax dëgg yàlla rawdu dinañ ci dikkaat ci beneen émission sax ak ñoom ci mm-hmm. ci ci ci ci nit ñu téye suñ micro yi mu fonk ñu fonk ko lool di sant maam Issa Mbàkke Ahlou kafe ban àndeek moom yàgg na lool te fu mu toog ci mbooloo da koy wax xam naa sax waxtaan woon fa jële dana ko teg ci beneen émission incha allah di leen jaajëfal di leen joxaat rendez-vous beneen alxames incha allah ci barke Serigne Touba jërëjëf yéen yàlla defal jàmm